dàq bi ñu dàq élection yi nag mën na indi ay jeexital yu métti ci koom-koomu réew mi donte sax Sénégal dund na lu métti. ginnaaw Covid 19 bi ak ger bi amoon ca Ukraine loolee nag kii di Babacar Gaye xam-xamam ci jëm ci wàllum koom-koom. bu fekkee ni stabilité politique amu fa stabilité sociale amu fa note bañ lay jox du favoriser les investisseurs pour ñu ñëw mais nag su fekkee ni investisseurs yi ñëwuñu dafa am lu ñuy tuddee des fuites de de création de richesse mooy la nga waroon créer ci richesse dootoo ko mën a créer parce que investiser yi ñëwuñu. Euh, su boobaa aussi day impacté directement ci chômage bi da ngay gis ni ñi waroon liggéey du ñu mën a liggéey bu ko defee économie bi dafay daal di nërmelu. Abdoulaye Seck itam doon économiste di dëggal wax ju ni mel. léegi nag loolu commencé na juree effet parce que démb dèjà man bi may xool xaw ni ma si loolu information yi ma fa am mooy que Sénégal bi nga xam ne moom la mooy dette Sénégal ak obligation yi. dañoo wàcc commencé wàcc wàcc wàcc boo xamante ni trois de trois virgule soixante seize pour cent donc foofu commencé naa yéen parce information yi na àdduna. ginnaaw wàññeeku bi ñu nar a nemmeeku ci volume d' investissement yi jógee ca bitim réew nag ñi nga xam ne ay acteurs politiques lañ defoon seen i koppar ci campagne bi itam danañ ko yëg bu baax. parce que bu ñu dem parti politique gis na ñoom dañuy def ay location de véhicules et ñooñu nga xamante ni ñooy concessionnaires yi jotoon na louer véhicules yi ñoom aussi dañuy am benn manque à gagner parti politique yi nga xamante ni dugaloon nañ seen xaalis si ay affiches si ay branding si ay voitures yi nga xam ne dafa nañ leen def ay branding yooyu yépp dangay gis ni ay manque à gagner yu am am solo yoo xamante ni tey jii pour nga dabaatal ko lu jafe lay doon. spécialiste yi di xam ne koom-koomu réew mi mënatul dund ab crise bu metti ndax taxu ko dëgër bu baax loole waral ñooy ñaax njiit yi ñu gaaw wut ay saafara laata mbir yi di gën a jéggi dayoo.